Le président de la commission bi Bassirou Goudiaby nekk député à l'Assemblée nationale gërëm euh, monsieur Oumar Ba nga xam ne DG Alexandre Ngom moo ko fi représenté te mu nekk njiitalu association des maires te mu nga xam ne ci laa bokk waaye dama gis ne duñu ma invité benn yoon ci seen réunion yi nag di nuyu itam suma xarit Mamadou maa ngi ne Mamadou di jaar ci Arouna di wuuri bayloo Diallo président de l'association des euh, l'union de l'association des élus di remercier aussi représentant ministre Oulimata Sarr ministre de l'économie du plan et de la coopération te monsieur Dem teewal ko fii remercier présidente de conseil d'administration ak président conseil d'administration ou conseil de surveillance yu fi nekk teew yëpp remercier directeurs généraux yi directeurs yi chef de programme yi chef de service yi ñëpp ñu nga xam ni agent bi gën a tuuti ba ci kaw ba ci secteur jaar ko ci directeur de cabinet si seen teewaay bi fii di leen sant nag parce que waxtu yi mel nii nga xam ne dañuy xayma li ñu liggéey ci 2022 xool li ci li ci ci ñaaw ñu defaraat ko li ci li ci baax ñu dëggal ko xool it yan jumtukaay lañu war a mën a am ba ëllëg li nga xam ne président de la république ak premier ministre xaar nañ ko ci ñun ñu mën koo gis ci ak aussi réew mi xaar ko ci ñun ñu mën koo gis ci suñu liggéey may rafetlu nag teewaayu assemblée nationale. assemblée nationale nga xam ne rôle am mooy contrôler li politique publique naka lañu ko doxalee di rafetlu liggéey collaboration bu ci am te loolu laa jàpp ne loolu ba la war a mën a nekk euh, lu nga xam ne député yi nga xam ñun ñëpp lañ fa toogal lépp lu ñu soxla ci ministère bi rafetlu naa li président wax ci samay service ma leen di féliciter ci loolu mooy diligence bi ak réactivité bi parce que loolu mooy mission de service public bu ñu am te maa ngi leen ciy ñaax ñu gën cee taxaw mais aussi féliciter l'Assemblée nationale pour son rôle de contrôle en tout cas man bi ma nekkee ministre de l'urbanisme ba tey tey nga nekk président de commission bi gis naa aussi sa taxawaay même ci liggéeyu commission bi gis naa taxawaay ci as plénière gis naa taxawaay aussi ci réaction yi nga xam ne à chaque fois bu ñu leen bu leen sollicité ma leen ci gërëm di leen sant bu baax a baax may wax ne rek man am naa satisfaction te satisfaction boobu président la République témoigné na ko premier ministre itamit liggéey bi nga xam ne collaboration bu ñu nekkee may wax naa tous les jours nañu jàpp ni liggéey bi man brassaaru capitaine bi laa takk waaye joueur équipe de football il faut être te gëm naa ne ku nekk ci goxam ak ci liggéeyam bu ko jàppee ni mu ko war a jàppee kenn du soxla dara lu dul ñu ànd ensemble quelles que soient nos divergences quelle soit la pluralité de nos options ñu xam ne réew mi ñun ñoo ko mën a bokk damay fàttali toujours am na benn phrase mooy ñoom Moustapha Fall Thié président Moustapha Fall Thié nga xam ne communiste bu mag la moom dañ doon wax ni marchons séparément mais quand il s'agit de frapper frappons ensemble loolu laa gëm ci réew mi loolu laa gëm ci liggéey mooy bu ñu ku ci nekk bu amee ci yoon bu ñoree dóor nag nañ dóor a dóor mën nañu xàcc ku nekk di xàcc mais dóor bi moom bu bu ñu dóor a dóor rek amul lenn lu ñuy të ci ñaari programme yi nga xam ni président moom ci la ñu tënk ñaari programme yi gën a mag te mu tënk ministère bi yëpp muy programme zéro bidonville Euh, maa ngi wax léegi léegi wuuri mais tanewu ma koy ne zéro bidonville nañ koy waxee ci ci wolof mais tanewu kon nu ñu yem ci zéro bidonville. mu am déclin mu am mu am déclinaison bu mag bu ñuy wax ci biir zéro bidonville programme bu ñu wax cent mille logements. cent mille logements nag bu ñu ko waxee chaque fois gars yi ñu foog ne ci benn at war nga ma a def cent mille nekk président fekk ci at bu nekk fii ci Sénégal cinq mille unités d'habitation lañ la def. 5000 unités d'habitation mooy terrain yi ñuy joxe ak kër yi bu ñu xaymaa li HLM doon def li SICAP doon def ak promoteur privé yi ñu doon def lépp lépp lépp 5000 la boo ci booree terrain yi président bëgg nag ñu yóbbu ko ci benn at yóbbu ko ci 20000 gaa balaa ngay def loolu nag dafa am environnement bu nga xam ne waroon nañ ko régler ba pare environnement institutionnel environnement juridique moo loolu moo indi ñu créer SAFRU loolu moo indi ñu créer fonds pour l'habitat social loolu moo indi président jël arrête def loo ko ministre des finances jël arrêté def ay ay ay wàññi wàññi tax yi ñu def ay taxes sur le ciment di ko alimenter fonds pour l'habitat social environnement boobu yëpp bi mu paree bu mu yembee ñu war a dem nag di waxtaan ak promoteur sénégalais pour que ñoom tam ñu jàpp ci waxtu wu ñu nekk nii signé nañu plus de 23 conventions ak partenaires sénégalais mais bu ñu xaymaa un an après am na yu bëri yu ci des c'est vrai promoteur sénégalais yi lu ñu lay wax ni way accès à la propriété foncière bi moo xaw a jafe parfois jafe-jafe yooyu parfois jafe-jafe financement parce que losement dafa cher mais yooyu yëpp président dimbali ñu aussi ñu jàppaat ci ba ñu ubbeeku ci au niveau étranger am ay partenaires malien am ay partenaires yu nga xam ne Dubaï am ay partenaires anglais yu nga xam ne ci ay fan yu néew nekkatul léegi ay ay ay weer ay fan yu néew danañu commencé ci nouvelle ville de Thiès. à une hauteur assez exponentielle te booba année bu nekk au moins au moins danañ atteindre les vingt mille yu nga xam ni moom la ñu assigné à partir de deux mille vingt trois bii danañ ko commencé au moins chaque année ñu am vingt mille logements mu waral nag une politique soutenue et structurelle bu war mën a continuer loolu ci aspect la rek. aussi wax na ko am na Alexandre Ngom nga xam ni ci lay liggéey wax na ko en terme de planification urbaine bu ñu xoolee dëkk dëkkaat yu bëri fii Sénégal dañuy wax ne ñu ngi jiite ay dëkk amul benn instrument de planification bu ñu xoolee bi ñu ñëwee c'est on était à 13 pour cent 13 pour cent ci dëkk yu Sénégal communes yu Sénégal yu am ay plan am na ay capitale régionale ci Sénégal am na ay capitale régionale ci Sénégal ay capitale départementale ci Sénégal amuñ benn instrument de planification loolu nag président waxoon na nii nañ ci taxaw ñu taxaw taxawal benn programme bu ñu programme national de planification urbaine et de gestion des risques boobu itam ñu ngi ciy doxal ak ministère de ci jàppale ci ay partenaires pour que au moins en en deux mille trente cinq ñu arrivé au moins à cinquante pour cent parce que quand même un processus on mu nekk ay koppar yu bëri yu ñu war a dajale. beneen bi mooy Sénégal zéro déchet boobu tamit am nañ ci satisfaction loolu euh, président jël na UCG transformé ko en société nationale may remercier aussi assemblée nationale parce que bi ñu indee loi buy transformé UCG en société nationale à l'unanimité la ñu ko wote loolu itam muy wane rek am na ay secteurs yu nga xam ne de consensus national fu dialogue war a amee ci assemblée nationale am na ko ci société yenn sociétés yi ci yenn projet de loi yi ci yenn proposition de loi ñëpp ànd ci ci projet de loi bi nga xam ne président Macky Sall moo ko yóbbu assemblée nationale war ko transformer sona UCG en SONAGED boobu itam gis ngeen foofu unanimité moom foofu am na lu bari lu fay lu fay dox mu amoon ay à benn projet bu tuddee Promojet nga am ne partenaire technique ak financier accompagné ak état du Sénégal montant de plus de 206 milliards mu war a concerner 238 communes te président ne woon nañ ko élargir aussi aux régions du centre la région de Kaolack la région de Kaffrine la région de Fatick ñu ngi ci doxin boobu boobu itam day gën a jàppale communes yi gox-goxaat yi ba ñu am ay infrastructure infrastructure yu taxaw yu mën a gérer les déchets te war nañ am tey mbégte tey foo jëm ci Sénégal ci ni dëkk yi meloon tey xar-xaru dëkk yëpp soppeeku nañ ci cet bi loolu tamit ñu koy renforcer à côté direction générale du cadre bi di continuer def liggéeyam classique ses compétences régaliennes yu mu doon mu doon doxalee yooyu yëpp nag bu ñu ko boolee mu nga xam ni am na liggéey bu des am na liggéey bu ñu def bu baax mais am na liggéey bu bëree bëri bu des mais liggéey bi lu mu bëree bëri bëri bu des président ak lu mu ñu mën a wóolu ñun ñëpp ak doole bi mu ñu mënta jox ak koppar bu ñuy assemblée nationale wotel te amul engagement amul volonté de servir ça ne ça, ça ne marchera pas bu ñu engagement am volonté ça vaut plus que tous les autres milliards de l'Assemblée nationale ou des partenaires techniques et financiers si chacun d'entre nous y met du sien on arrivera à des résultats parce que chacun peut marcher comme il veut mais quand on marche ensemble on marche sûrement en tout cas maa ngi am ngërëmte sant leen bu baax a baax di leen féliciter si seen présence je vous remercie de votre aimable attention